salaamaaleykum mbokku internet yi nuy nañ leen yéen ñëpp ziar leen di leen jaajëfal di rafetlu ànd bi ak yéen di leen bégee bu baax a baax ñu ñëw ak yéen ci seen rubrique cent pour cent nawetaan 100 pour cent nawetaan nag xam ngeen ne rubrique bu bees la fii ci King Ouse et TV démb la ñu njëkk a def première émission ñu ngi ñëwaat nag ci ñaareel bi ñu jox leen nag résultat yu dippee yu cukkee fële ca Thiès loolee mu ngi jëmoon ci fas nationale yi xam nañu nag ñan ñoo jël coupe yi maanaam dafa nekk ci wàllu cadet ak senior. kade yi ASC Jaloore bu Mbuur moo doon jàkkaarloo ak Gazelle bu Dakar waaye nag doomu Mbuur yi dañoo daanu seen diggante ak gasel bu dakaar match ba nag 0-0 la dañoo dem ba tiir au but ca la yëf ya jeexee kon nag coupe ba dem na fële ca Gazelle bu dakaar loole nag kii di gasel ñetti bii la dugal ci tiir au but ñii di waa Mbuur dugal ñaar kon nag coupe ba dem na fële ca dakaar waaye nag ci senior yi maanaam mag ñi kii di R100 bu cees dafa daanu ci digganteem ak kii di dëkkandoo bu Louga loolee nag waa Louga yi am ñu coupe ña ngay bég lool match ba nag benn bal ci dara la ko dëkkandoo dóor kon nag R100 ma ngay jooy loolee ndax lu ñu organiser sa biir dëkk nga daanu du du neex lool waaye nag yëf yi moom sport noonu lay demee na ngeen muñ rek te xam ne di ngeen ñëwaat incha allah ñu ñëw ak yéen ci programme mu tey bi tey nag ñoo ngi sant sunu grand Moussa Niang ndax ci wagon am wagon sportif am ci la ñu jëlee information yi ñu am di leen ko jox région de Saint-Louis tey zone neuf ñoo aye ñaari match moo fay am ASC Médine mooy jàkkaarloo ak ASC MSR loole mu ngi am 14h45 waaye nag bu ñu demee ba ca ñaareelu waxtu ba kii di Bango mooy jàkkaarloo ak kii di Jom ji deuxième heure bi nag 16h45 lay commencé première heure bi mooy commencé 14h45 kon nag waa Ndar se leen ngeen def seen parfum yu neex daagu nànk dem ca stade ba. supporter seen i gone yëf yi neex ndax nawetaan moom dafa neex lool kon gaa ñi képp ku ci am programme rek mën nga ñu ko lancer description bi sunu numéro moo nga fa boo ñu yónnee programme bi rek ñun dinañu ko jàllale ñun nag ñoo ngi fii ci la cité sucrière muy Richard Toll Richard Toll nag dooragul mais bu dooree lépp luy information dinañ leen ko yeggee yéen waa Richard Toll ak Sénégal gépp bàyyiwuñu kenn ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba beneen vidéo incha allah